jamono ji ñuy wax ak yéen parce que président Macky Sall bi mu toggee ci réew mi ba tey façon xeetu def-def procédure xalaat pexe bépp boo xamante ne mën na ko permettre mu toog ci réew mi bañ a dem ay ñoñam bañ a dem mu ngi koy def mu ngi koy xalaat mu ngi koy jëf te lépp nag fekk ñu fi ñu mat ci ay seede yu mat sëkk ba mu toggee ci réew mi ba tey xalaatam mooy naka lay def saa su nekk pour jël processus électoral bi nga xam ne sénégalais ñoo ko bokk ma téye ko ci sama loxo ba nga xam ni nit ñi mënuñu ci am accès comme man ni ma ci amee accès bu ko defee may segg yi yor sama pañe yuréet di xool kuy jàll ak ku dul jàll waaye itam yemul ci loolu mu jël justice instrumentaliser ko utiliser ko pour écarter adversaire politique ñu sóobu ci combat bi xeex ci ci CREI mu écarté Karim Wade exilé ko jàpp Khalifa Sall teg ko persécuté yeneen adversaire politique ku nekk rek ak yoon bi muy jaare ak yow pour que cëppaandaw gi moom képp ak li mu bëgg mu am 2019 mu toog malgré écart loolu yëpp mu def ci ay processus sénégalais yi di ko observer mais nit ñi jàpp ne rek dëgg la ñu ngi koy dénoncé dëgg la gis nañ ko dëgg la ñu ngi koy xeex mais dina am fu président Macky Sall di yem dina am foo xam ne xëy na du ko jéggi waaye tey nag mu sóob ñu ci li nga xam ne mooy xaaj bu mu bi xaaj bi mu bi mooy fexe naa wax leen ñii dañoo ruubal ma tëj leen fexe naa wax leen ñii dañoo dëngal ma tëj leen fexe naa wax leen ne ñii mateewuñu amuñu parrainage amuñu lii amuñu lii ma filtré leen waaye léegi gannaaw gis naa ñoo xam ni luubaluñu am na ñu parenage am nañu crédibilité ñu ngi ci en place ñooñu nag il ma xool yeneen xeetu pexe pour écarter leen loolu mooy li ñuy dund waaye li président Macky Sall daawa def lépp ba ci exilé ba ci tëj kaso ba ci xeetu métital bu mu ci gis direction général des élections yàgg naa jàppee boppam moom liñ ko war a jàppee mooy moom organe la boo xamante ne dafay recevoir ay ordre du ministère de l'intérieur xam fu mu yem président Macky Sall ak i ñoñam yàgg nañu ñoom di taxaw fu ne naan conseil constitutionnel képp moom moo mën a téye candidature ba moom sax barki démb troisième candidature am bi mu doon wax ay nitam dañ doon wër plateau naan kenn mënul wax ku dul conseil constitutionnel waaye nag loolu la ñu gis déjeuner démb jël place su conseil constitutionnel daanaka violé li nga xam ni moom moo ñu boole ñun sénégalais yi ba ko wax ñu ne la suñu constitution moo ñu tënk suñu conseil constitutionnel nga xam ni rôle am mooy permettre à tout citoyen je dis bien tout citoyen parce que nag président Macky Sall changé na fi ay loi changé fi ay ay ay ay interprétation mais mënta changé Sénégal ndaxte bu laalee constitution Sénégal rek mu ñu nekkatuñu ci république kon ku nekk bu yeboo mu xool nu muy taxawee mu taxawee ko noonu donc président Macky Sall ak gouvernement wa nga xam ni ministre de l'intérieur mooy jox DG yi ay ordre ñu xam ni bépp Sénégalais am nga droit nekk candidat à la candidature amul kuñ ko sañ a nangul wala sañ ko ko bañal parce que c'est un droit ak tout le parce que président mag Sall foofu la egg ak ñun di ñu pousse parce que président Macky Sall foofu la egg ak ñun di ñu pousse di ñu pousse di ñu sës ñu egg si ak moom foofu ñu war a taxaw Sénégal tollu situation boo xam dafa war a stable dañu war a xam fu ñu jëm dañu war a xoolaat ni ñu ciy jëmee. ñu ñëw teg acte bu mel nii mu nekk un acte politique mu nekk un acte politique qui n'a pas surpris les sénégalais ba sénégalais yëpp jàppoon nañu ni président Macky Sall ak ñi mu àndal pare nañu ndax moom sax wax na ko joxe na promesse joxe na euh, joxe na ay garantie que dina dem jusqu'au bout de lii mu tàmbali waaye nag ñu jàppoon ne même buy dem jusqu'au bout de li muy tàmbali ñun li ñu boole. muy conseil constitutionnel li ñu boole muy suñu constitution loolu dinañu ko fi wàccal parce que loolu bu ñu booleetu ñun amatuñu ñun obligation toog fii naan état de droit ndax conseil constitutionnel conseil constitutionnel ak ak juge constitutionnel boobu ñoom ñoom ñoo nekk les garants de la stabilité de ce pays là ndax président Macky Sall ci jëmmi ko li tax mu nekk suñu président dafa waat ci seen kanam kon moom bu leen jëlee wàccee leen ci suuf. nangu seen i prérogative amatul moom sañ-sañu ñun ñu koy considérer comme un président de la république mateetu ko doxeetu ko tey nag suñu mouvement woolee pour ñu waxtaan ci suñu xalaat ci tolluwaayu réew ñu wax leen lii ñu gis DG e def mu nekk lu ñu condamné mu nekk une violation mu nekk loo xam ni xel mënu ko nangu parce que le citoyen Ousmane Sonko dafa am coalition bu ko porté coow li bare na trop fan yi ñëpp a ngi wax ku mu neex nga nekk candidat à la candidature maa ngi félicité ñi ko def ñëpp maa ngi félicité ñi nga xam ne ñëpp ñoo nekk ci processus boobu parce que ils prennent leur devoir de citoyen mais ya y a un citoyen sénégalais à qui on a dit hier vous pas citoyen sénégalais alors que loolu sax déjà e mënu ko wax gis nga tey burkinabé guinéen ak ku munti doon bu ko neexoon mu dem jëri bu yóbboo carte d'identité bu ko neexee mu dem jëli dossier au niveau de la DGE conseil constitutionnel mooy wax suba est-ce que kii strictement sénégalais est-ce que nekkul strictement sénégalais parce que carte d'identité ngay joxe yónnee mandataire nit ñaa ngi wax rek nag Ousmane Sonko mi nga xam ni moo tax may wax tey comme ni ko ay moroomam taxee woon démb. démb du pastef moo dem déposer ko au niveau de la DGE c'est la coalition Sonko président 2024 bi nga xam ni ay partis politiques ak i mouvement ñoo ko porté ñoom ñoo dem déposer ni ko yoon mayee may ko ko may ko ñeneen ñu def loolu nekk donc nekk en toute légalité parce que gis naa ay nit ñu koy jéem a layal di expliquer naan comme PASTEF dañ ko dissoudre bu fekkente ne dañu dem au nom de PASTEF du PASTEF moo déposé pour Ousmane Sonko ndax bokkuma PASTEF bay waxal PASTEF coalition Sonko président 2024 moom moo dem avec des partis légalement constitués et des récépissés avec d'autres mouvements citoyens ñoom ñoo dem def seen procédure ni ko yeneen coalition ak yeneen parti yi defee ñu xañal leen ko bañal leen ko sous seul prétexte que ci seen biir dafa am ku tudd Ousmane Sonko donc nekkatul waxi parti politique mais waxu citoyen sénégalais bi moom la nii sa citoyenneté moom la ñu nier son devoir et son droit loolu nag taxaw seetlu daf ciy bokk parce que citoyenneté ñun moom moo ñu boole moo tax ñu nekk une nation moo tax ñu nekk une république et il est hors de question vingt trois ñu nekk ci réew moo xamante ne dañuy accepter nangu. président Macky Sall juste parce que dafa bëgg éterniser wu ci pouvoir bi juste parce que dafa bëgg téye nguur gi naan dama koy jox ku far ci man naan bu ñu fexee ba mu rëccu ñu kon ñu dem à la catastrophe ñu fexe muy confisquer suñu citoyenneté lu ñu nangu loolu lu ñu seetaan loolu parce que dañuy complice ci li nga xamante ne moom la moom la nekk di def ak la moom moom la bëgg di def ñuy wax ne nag suñu déclaration mooy La candidature du citoyen Ousmane Sonko est une candidature légitime, légale et recevable parce qu'elle est reçue devant le peuple sénégalais et seul le Conseil constitutionnel est capable d'écarter cette candidature. Donc ñun par ma voix on invite tous les Sénégalais yi nga xam ni ñii xam na ñu may nañu a Bousso ñii bëgg nañu a Bousso ñii bokk nañu force citoyenne ñii bokk nañu ay sympathisants ci yeneen mouvement yu ànd ak ñun ni ngeen a jóg taxaw takku pare ànd ak ñun ci pare ne le candidat Ousmane Sonko ndax nag moom la ñuy candidaté moom la ñuy parrainer moom la ñuy soutenir avec toutes les responsabilités yi de de Pastef et de de Pastef et c'est à saluer parce que Pastef dafa am électorat Pastef dafa nekk parti te la plupart de di wax naan Pastef am na ay plan ñooñu ñoo doon wax barki démb Pastef dañ ko dissoudre il faut être cohérent dans ce qu'on dit soit Pastef parti la ba tey soit nekkatul parti bu Pastef nekkee parti am nañ sañ-sañu teg ay stratégie pour récupérer seen ay voix bu fekkente ne Pastef nekkatul parti ay citoyens yi nekk biir Pastef am nañ sañ-sañu organiser wu ak yeneen parti wuti itam dajale seen électorat ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir avec cette coalition Sonko président qui porte la candidature